mbokk yi comme niñ leen ko waxee sànq seen première numéro bu seen émission Soirée ñu ngi daal di àndal benn chef bu tudd chef Alioune léegi nag laataa mu ñuy présenté li nga xamante ne moom mooy plat du jour dañuy sekk ak moom benn waxtaan rek ngir ñu mën a xam ci parcours am alors chef ñu ngi lay nuyu ñu bàyyi la nga daal di présenté wu. salaamaaleykum ñu leen di ziar xam di dinañ jox seen wàccuwaay si bés bi si li ngeen ñu ñëw di ñu di ñu seet di ñu nemmeeku si xamante ne mooy suñu liggéey parce que boo xoolee Sénégal cuisine mo fi gëna nek na lo xamante dafa am doole parce que ñeppay lek mhm. tu vois té dañuy rafet lool ci bi. Mhm. machallah allah. nga ñu wax tuuti ci sa parcours ndax tay da nga def formation cuisine mën nga expliquer ngir gaay gën la mëna xam. bah oui même parce que def nañ parcours bu xawa a vaste quoi aussi parce que def nañ formation en 2014 au centre socioculturel de Ngor avec euh, Père Bonel et Père Ndama tu vois. après aussi dem nañ longueur de faire stage après ñu retenu comme cuisinier tu vois on a fait là-bas un an presque après j'ai fait un stage à Radisson un mois après j'ai fait à AFC Africa Fried Chicken comme chef cuisinier presque deux ans c'est pour ça après j'ai j'ai allé à Mauritanie au restaurant Granada pour comme chef cuisinier pour une durée de un an après je suis revenu j'étais à YesFoot comme chef aussi. Parce que j'ai fait là-bas un mois, un an, six mois. Tu vois. Et après là, je suis là, je suis dans les domiciles. Parce que Sénégal, les cuisines, les, les restaurations, la restauration ne paye plus, on dirait. Mhm. C'est ça quoi, c'est pour cela que ma dem je yi dem ci domicile je gën a suñu xam-xam améliorer quoi mhm. mais est-ce que métier est bon non mais le métier bu yomb bu yomb ku ko yaakaar dafa yomb yaay nax sa bop mhm. ku yaakaar ne youtube bi ngay nek wala dara yaay ngi nax sa bop mhm. foog nga ramper ci jaayante ci lu beuri xama nek ci bu baakha baakha baax mhm. parce que xama tout début dafa metti surtout metti bi parce que xama boy commencer da nga nan day metti ci yow parce que kër beet sax boga xol xool da jema te ben effet bu ndaw la rek mais day metti bu baax ku ko yaakaar dafa yomb yaay ngi nax sa bop yaa nax sa bop est-ce que yow à travers li nga xamantene mom moy métier bi nga def dang nga rencontrer ay problème wala est-ce que amna jour bo xamantene ne jékki nga né da ngay bàyyi dootoo defati li da ngay dem séti ji leneen. si si parce que bima ma nekkee fofu foofu wona lol parce que dañu débauché fi yóbbu fofu non après di ñu tégalon yépp defuñu ko ñu dund fa lu métti nak di fanaan si yoo ay ay vestiaire lepp rek xama amana kaddu moñ fa yobbu ñu am suñu jom am suñu fayda di fanaan si verser ba suñu booy doo doo comprendre mooy loolu. Mhm. dund fa lu metti lu metti lu metti foofu moom gëm naa ne loolu jàngal na ma lu bëri ba dama ne bu mu ñëwee Sénégal damay bàyyi restauration. Mhm. dem xooli leneen mais après dama am sama benn bu baax maman Anta mu ne ma non continuer sa li nga ne parce que man nga li ngay def xam noonu rek moo tax ma gën a am fulla gën cee ne. Mhm. mais bu woon loolu man moom pare woon naa si quoi. mais mom moom saa yi du dafa dafa métti. non foofu dañ fa dund man moo ko sax. looloo ci gën a ndaw quoi. looloo ci gën a ndaw ah yàlla baax mën nga expliquer li nga métier bi. Hmm. noblesse bi mu am. non waxuma la noblesse sax parce que si àdduna la quoi àdduna la parce que jox nit mu lekk rek mu kontaan loolu mbégte boobu noonu dara gënu ko xam nga la. kon nag xam nga amaana nag xam nga loolu noblesse gënu ko rëy. defal nit ki mu lekk mu kontaan yow da ngay kontaan de un parce que. présenté nga nit ki lu baax. lu neex xam nga xolam sedd si. après yow mii sa xol da siy sedd force carrément. Mhm. parce que cuisinier loolu lay war quoi. Mhm. mu toggal nit ki nit ki sentir boppam boppam mu

li si li loolu wan noonu nag foog nga am base pour mën a xam li la wa li la wanul noonu. Mhm. boo amee base bi nag di nga mën a xam li la wan noonu. Mhm. moo tax bu ñu yokk suñu xam-xam du ñu yokkee xam-xam si YouTube parce que si livre mu ngi fi y a des livres de cuisine. Mhm. foofu la ñuy demee yokkoo suñu xam-xam ak ñun li yor mën a améliorer si di mën a élaborer suñuy suñuy menu. ak suñu plat ak suñuy dessert yooyu yëpp. yooyu yëpp mais boo ku topp YouTube bi moom saa

loolu loolu la ñuy xaar loolu la ñuy loolu mooy suñu mbégte ba ñu lu ñuy dégg fu ne di représenter Sénégal fu ne parce que suñu gastro mu ngi fi te loolu mooy mooy mooy suñu base ñun ñun chef cuisinier les jeunes chef cuisinier jéem a jël gastronomie sénégalais yokk ko mu dem jël suñuy produits yi nekk fii nii kër yees yi loo xamante ne duñ jëlati ay gastronomie français parce que ñun am nañ lépp. nebedaay bi mën nañ si créer lu ne mhm. xam nga ak yeneen ak yeneen mil bi maïs beeg lu ne mën nañ ko si créer kon ñun bi ñu valoriser suñu bopp non mën nañ dem international bay représenter Sénégal te loolu loolu lañ bëgg mhm. alors ni mu ko waxee am na solo dem ba di représenter Sénégal laajtaa ñuy dem ci li nga xamante ne rek moom mooy plat du chef dañ koy daal di laajte lan la ñu andil tey ngir suñu mbokk internet yi nga xamante ne ñu ñuy seetaan à travers Kulanjan TV chef tey lan nga ñu andil comme menu. plat du chef lan la. plat du chef bi tay pëg bu la. Mhm. Euh, poisson fumé avec des haricots rouges et choux rouges. Mhm. parce que bo xolé pëg bu c'est c'est c'est base bo xamantene amul ben huile lépp si meññeefteef bi la té lool mo mo war légui nit ki dafa wara lek lo xamantene day gaaw digérer xam nga lek lu baax lo xamantene bu ko lekkee dina xamné ne ni nii la ci mom té wér la ci mom Mhm. noonu la demee. alors euh, dégg ngeen li nga xamante ne moom la ñuy présenté tey ñu bàyyi ko rek ñu daal di jàll ci cuisson bi. comme ni ñu ko waxee rek li muy au poisson cesse avec haricots rouges choux rouges concombre tomate cerise et citron avec une vinaigrette d'arachide waaw di gërëm waa Colondian TV parce que lii dafa nous ñëw di fekk ce chef cuisinier di leen tendre micro pour ñu donner a mën a xam-xam yokk seen visibilité waaw di gërëm tamit madame Gassama parce que disponibilité moom la di gërëm timit wa Ngor di gërëm sama frère ñëpp lay gërëm tu vois di gërëm présentateur présentatrice bi waaw. alors mbokk yi gis ngeen li nga xamantene chef mom lañ leen présenter won tay ñu koy jaajëfal ci disponibilité de di leen jox rendez-vous ci benen numéro ci seen émission soirée.